jaa ngeen jëf ci taamu bi Walf TV dal leen jàmm si seen magazine de la mi-journée ñoom mbégte tey dalal Khadim Mbacké Abass euh, di yàpp bindkat bind téere bi jagleel ko Khadimu Rasul tuddee ko la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba sëñ bi Mbacké ñu nuyu la dalal la ci Walf TV. Euh, Assane li sant baax ci daal géem daal fii ci Walfadjri. Euh, néew na loolu la ñuy dégg turu Cheikh Ahmadou Bamba di dégg wàllum politique bi ñu doon mbir moom est-ce que jafewul si yow ndaxte ñu bari wàllum politique sax dañ ko jàppee mbirum àdduna te Cheikh bi euh, xamewuñ ko woon yëfi àdduna. waaw mën na nuru loo xamante bi day jafe wala loo xamante bi ne. ñaari mbir yu àndul la. Mhm. waaye loolu jàpp naa ne bu ñu delloo ci baatu politique li muy tekki rek mën nañu xam ne. Euh, euh, politique ak sëriñ bi mën nañoo ànd wala politique ak lislaam mën nañoo ànd ndax politique niñ koy waxee dafa am ñaari euh, gisin yoo xamante bi ne dafa bokkul mooy gisin bi nga xamante bi moom lañ jàpp ci lu njëkkoon nga xamante bi ne di commencé ci ay Platon Aristote ba ci Machiavel gisin boobu lañ amoon mooy ne politique comme un bi permettre nit maanaam ni ko yàlla bindee nga xam ne dañu wax ne c'est un c'est un être social et rationnel nature boobu nekk ci nit ñu ñu ñu théoriser une conception politique bu koy permettre mhm. maanaam mu mu réaliser sa nature ci société bi muy dundee cadre bi muy dundee ci nekk nit un être social un être rationnel donc politique kon li njëkk mooy permettre nit mu réaliser nature bi nekk ci moom nekk nit koo xamante bi dina amal njariñ société bi muy dundee danga nga nekk timit li ko war ci diggante ak borom moom muy euh, euh, rationnel ndax rationalité bu ñu koy wax dañu wax ne mooy permettre nit ki def jëf yu baax su saa bu bu nit defee lu lu lu baaxul acte que sa quelque part léegi tamit bi à partir de Machiavel nag ci lañu jëlaat benn conception jàppe politique comme une technique nga xam ne li ñu si jublu dul rek fexe ba nguur gi nga xamante bi dañ koy xëccoo euh, maanaam ñu nga jot ci boo ko jotee tamit noo ko mën a téye mu gën a yàgg say loxo lool nag dañ koy def defin ko ak defin boo xamante bi ni bu la ko mën a permettre rek pour nga àgg ci au pouvoir maanaam maanaam baax na loolu nag moo dem ba indi noblesse bi politique amoon mu xaw a yàqu ba léegi soo tuddee maanaam lu mel ni l'islam wala nga tudd nit ku baax mhm. bëgg ko comparer ak politique wala bëgg indi sa vision ñu jàpp ne ñaari mbir bokkul la waaye bu ñu politique classique maanaam sëriñ bi ak politique lu mën a ànd la ndax am na vision politique parce que par exemple Rousseau mm, bu ñu ko jëlee par exemple dafa ne acte bi gën a politique mooy c'est la création d'une cité te Sëriñ Touba li mu créé ci ay société kenn xamul nu mu toll te saa boo créé société da nga am vision politique économique sociale ak lépp lu tax nit ñi mën a dund ci société boobu. Mm-hmm. Euh, ci ci ci mbir moomu tax euh, bu ñuy méngoo méngale euh, ni ñuy defee politique si suñu réew yi ak jamono ji mm-hmm. wute na loolu donc li sëriñ bi bind. woon ni noonu la ñu war a doxalee ab société. Mm-hmm. ak li am ci jamono ji moom c'est diamétralement opposé parce que jamono jii nii jàpp nañu politique c'est une voie pour accéder à la à la richesse ak yu demee noonu maanaam te politique dafa war a nekk au service n'est-ce pas des des populations or nag politique ci niñ koy defee fi mu nekk nii wax ji maanaam rafetul jëfin yi rafetul ñaare bi tamit soo demee ba àgg au pouvoir li ngay jëf maanaam ak ni ngay doxee. est-ce que day du dëppoo ak maanaam nit ñi loolu nag dëppoo wutoo nag maanaam maanaam manaam maanaam maanaam ni ko sëriñ bi gisee sëriñ bi dafa jàpp ne ki yor autorité wala ki jiitu dafa war a sacrifier boppam pour l'intérêt général pour l'intérêt peuple bi mu bi mu bi mu jiite te loolu mooy tax tamit booy xool nit ñi nga xamante dañu leen jàppee comme ñu gën lu mel ne ay yorante yi wala wàll tax ñu gën nit ñi dañu wax ne ñoom dañoo jël seen dund déjee ko seen peuple yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam dundam yëpp daf ko jël pour euh, maanaam euh, sauver aw xeetam sëriñ su baax si ñu toog tamit noonu la mais nga jiite nit ñi di di def loolu comme privilège di di di nguuru di noosu loolu nekkatul maanaam service boo xamante da nga koy rendre à son peuple mais dafa loo xamante bi ne kon ni ñu koy defee bu ñu ko xoolee ak ni ko sëriñ bi gisee maanaam wuute na lool. bi ngay tàmbali téere bi da nga euh, dikkaat ci li ñuy woowee idéologie politique ndaxte ñi nga xamante ne ñoom ñooy yor ay parti politique yu si bëri day am ci idéologie bu ñu tënku. Hmm. Euh, idéologie yooyu nga dikkaat ci yu bëri ba sax nga koy euh, xaw a méngale ak ak li nga xamante ne moom mooy wàllum muridisme hmm. ngay wax ni yooyu méngoowul ak ñun nga xamante ne noonu la ñuy dundee lii suñu cosaan suñu réalité. waaw parce que yooyu yëpp boo si jël boo jëloon lu mel ni socialisme nga jël lu mel ni mel ni mel ni communisme wala nga jël lu mel ni yeneen yi nga xam ne sax moom léegi presque ña ko sosoon sax ñematuñ ci wax lu ci jëm muy nazisme ak fascisme yooyu yëpp boo xoolee wul ak ak ñun ni ñuy dundee ak tamit suñu ay réalité culturelle moo tax ma jàpp ne maanaam même même même même France Fanon doon na ko wax ci benn livre am les de la terre muy wax ne maanaam euh, si nous voulons transformer l'Afrique nouvelle Europe alors confion à les Européens les destinées de nos pays maanaam bu fekkee ne ñun dañoo bëgg soppi Afrique beneen Europe kon le mieux mooy ñu jël Afrique dénk ko ay Européens parce que ñoom ñoo ko ñoo ñu koy daq ndax ñoom ñoo ñu gën a xam seen bopp kon bu fekkee ñun dañoo bëgg mel ni ñoom nañ leen jox suñu bopp ñu ñu defaral ñu moo tax léegi nag bu ñuy comparé idéologie yooyu nga xam ne yëpp foofu lañ jógee maanaam pour wanee na leen yii yëpp adapté wul te suñu réew am nañ fi ay yeneen i courant politique am nañ fi lu mel ni mouridisme nga xamante bi ne moo gën a adapté wu moo gën a adapté suñu ay suñu ay suñu ay valeur suñu ay socioculturel suñu environnement bi ñu dundee moo gën ñu ñu ñuy copier ci loo xamante bi ne depuis bi ñu koy def surtout boobu léegi gisaguñ ci résultat biñ ci biñ ciy xaar kon jot na ñu jël yeneen idéologie politique yeneen système yoo xamante bi ne yoo xam ne ñoo jiitu sax mouridisme par exemple ba jëloon ko mel ni Thierno Souleymane Baal bi muy def révolution maanaam lu yàgg la te boo xoolee li li mu bind moo gën a sax perfection moo gën a baax sax maanaam constitution bu bu États-Unis li sart yi mu tegoon ci wàllum démocratie ci wàllum kii gouverner bu bu ngeen demee ba gis ki nga xam ne richesse am mi ngi yokk te amul lu koy prouver sax dañu ko war a wàcce su demee bay jël ay décisions yu bokkut ak intéressant dañu ko maanaam joxe ay charte yoo xamante bi ne yu yu la yooyu rek mënoon nañ ci mën nañ sauver kon bëri na si ñun si Afrique

permettre Afrique te ñoom duñu wax sax Sénégal Afrique la wax kon jàpp naa ne maanaam maanaam ñun parti yi fi nekk nii di référé ci ay idéologie yoo xamante bi ne maanaam ñoom peut-être maanaam sax xamuñu exactement lu muy signifié jàpp naa ne jàpp naa ne jàpp naa ne euh, jëloon li nga xamante suñu ay valeur la suñu ay ñi ko def fi lañ bopp ndax dañu wax ne les éléments d'une civilisation sont intrinsèquement liés à une mentalité héréditaire maanaam comportement socio socioculturel yi ñuy def nii dafa am ay mentalité héréditaire bu muy bu muy da nga da nga importer li ñuy wax une idéologie wala une conception du du ban yóbbu si beneen dëkk du dox maa ngi fàttali am na suñu benn professeur bu ñu ko daan wax mu ne les les conceptions sont abstraites maanaam par exemple mu ne bu fekkoon da nga jël benn xale bu ndaw bu am cinq ans mhm. nga ne ko dessinel ma avion wala wala maison wala wala wala cheval da koy dessiner facilement mu ne même boo jëloon professeur d' université nga ne ko dessinel ma laïcité mënu ko dessiner nga mu dessinel ma la république mënu ko ne loolu ñu si déggee mooy kon mu ne peuple bu ne wala nation bu ne a ba léegi ñun ci lañ nekk si idéologie yi am na ñaar yoo xamante ne génne nga ko eh, teg ko ci table bi comparé ko un peu ak mouridisme mm-hmm. di wax yooyu idéologie muy nazisme ak eh, fascisme waaw parce que nazisme ak fascisme maanaam ñoom seen seen point de départ mooy dañuy catégoriser nit ñi wane ne nit ñi bokkuñu fuñ jógee ca ca ca ca ca ca ñun liñ gëm ci lislaam mooy ne nit ñëpp maam ñu ngi jógee ci suñu maam aadama ci lañ jógee nekk benn benn benn xeet benn xeet boo xamante bi ne la ñuy gënantee mooy ci seen jikko ak ragal yàlla ak euh, jëf ju baax ci loolu la gënantee waaye gënantee wuñ ci parce que kii race aryenne la bokk wala race euh, africaine wala race leneen même am na ñuy wax sax ne race maanaam approprié wul ak tamit maanaam nit ñi bu ñu wax nit parce que nit ñëpp ñoo bokk race bu ñu jógee peut-être leneen lañ wax mais bu dee ci biiru nit mënuñu appliquer le mot race kon kon euh, idéologie yooyu nga xamante bi c'est des idéologies racistes maanaam bokkut ak yoonu murid bi nga xamante bi ne moom sëriñ bi bi mu ci départ rek dafa wax ne nit ñëpp ñoo yam la ñuy gënante moo ci seen i jëf ku ci gën a baax jëf yaa gën keneen gi waaye duñ gënantee ci aw sant wala ci ci classe sociale buñ bokk wala wala kii jaam la wala gél même ba loolu moo taxoon moom sëñ bi daroon xeex li ñu wax li ñu wax wàllum jaam nga xam ne am na ci euh, benn euh, benn lat mbokkum Lat bu ñëwoon di tuub si moom la bi njëkk euh, teg comme condition pour mu nangu ak tuubam maam dane ko da ngay esclave yi nga am yëpp yi nga xam da nga ko jëloon ci ci xareb Samba Sadio da nga leen delloo même dañu wax ne tamit bi mu jógee Mauritanie jënd lu mat cinquante esclaves indiwaat leen bi mu ñëw daf leen daf leen libéré bàyyi leen ñu dem loolu lépp li mu jóge pour wane exemple wane ne nit ñëpp ñoo yam la ñuy gënantee du ci du ci du ci couleur de peau du ci du ci fu ñu bokk ci classe sociale du ci aw sant du ci daan waaye rek ku ci gën a baax jëf yaa gën loolu tamit lis mooy point de vue l'islam bu dee nag dañoo am yeneen idéologie yoo xamante bi ne même sax léegi dafa devenu péjoratif mm-hmm. parce que dañu wax ne idéologie li nga li koy xamee dëgg-dëgg après deuxième guerre mondiale bi nga xamante bi ne les nazis dañoo xaw a dominer Europe ci lañ wax ne maanaam maanaam maanaam même la France l'Angleterre le Portugal Espagne mënatuñu défendre maanaam le colonialisme parce que ñoom it li ñu ko doon def parce que Jules Ferry dafa taxaw ci assemblée française daal di ne il y a des races supérieures et des races inférieures mm-hmm. nous les races supérieures nous devons nous avons le droit de civiliser les races inférieures mais dañu wax ne à partir de deuxième guerre mondiale bi ñu demee ñoom ba subir loolu ndax Allemagne dafa jàppoon tamit les germains ñoom ñoo les supérieurs mm-hmm. ñoom bi ñu ba ci nekk ak danger bi ci nekk ci la ñoom ñëpp commencé nag ne maanaam le le discours raciste war a dañ ko war moo tax maanaam ñoom xam nañ ne kon biñ li ñu daan teg africains yi wala yeneen xeet yi bi ñu demee ba teg leen ko Allemagne teg leen ko ci la ñu door a xam gravité bi ak tamit méttit bi moo tax idéologie yooyu yoo xamante bi ne si maanaam mënuñu ko comparer ñu ko accepter mu mënut sax prospérer waaye nag même boo jëlee yeneen tamit da gis ne adopté wul ak lu mel socialisme wala wala wala wala communisme nga xam ne ñun avant tout dañ ne ay jullit lañu maanaam maanaam lu ñuy lu ñuy xalaat lu ci julli ci lislaam la war a tegu mm-hmm. kon beneen idéologie buy dàq lislaam wala buy dàq ngëm mënu tamit mënuñu ko tamit accepter mm-hmm. kon daal jàpp naa ne murid muridisme maanaam doctrine la boo xam ne adapté na moo gën a wu par rapport ak euh, idéologie yi nekk ci livre bi. alors suñu waxoon nga nga nga décrire wala nga définiral ñu wax euh, idéologie idéologie euh, idéologie j'y arrive. mouridisme <laughs> lan lay doon. <laughs> waaw idéologie maanaam xanaam buñ ko wax mën nañ ko tënk ci ñeenti baat yoo xamante bi ne si ci ngëm lay fondé wu ak tamit ci ci yar maanaam ci ci comportement bu exemplaire ak tamit ci discipline ak ordre maanaam nga xamante bi ne duñ am anarchie dañu am ordre boo xamante bi ne ci la ñuy dox maanaam dañuy teg organisation parce que tey ji boo xoolee malaayika yi maanaam yàlla ni mu organiser euh, fi muy nekk dafa bëgg maanaam lu organiser lu anarchie kenn bëgg ko même même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wax ne maanaam bu ngeen gisee benn nit buy dem mu ne seytaane la bu ngeen gisee ñaar ñaari nit ñu dem seytaane lañ bu ngeen gisee ñett ñu dem ñu ne mbooloo lañ maanaam maanaam maanaam ñu maanaam maanaam mbooloo mi ngi commencé ci ñett loolu li mu jublu mooy bëgg nit ñu nosu organiser wu am ordre bu ñu doxee ci sëñ bi dafa fexe woon ba teg benn ordre boo xamante bi ne moo permettre yoon mu dox doxin bu doxin bu gaaw kon mën nañ ko tënk si ñeente ci ñeente baat yooyu même am na ci question boo xamante bi ne gouverneur général daf ko posé woon ne ko lan mooy yoonu murit waaye bi ko sëriñ bi tontu waxu ko lan mooy yoonu murid da ko nag yoonu murid mi ngi fondé wu ñeenti ci ñetti baat mooy iman islam ihsan te boo xoolee day delluwaat ci loolu mooy bu maanaam fexe ba am ngëm fexe ba tamit jëfee suñu ngëm fexe tamit rafetal suñu suñu suñu jëfin kon maanaam yoonu mu loolu loolu la maanaam bu ñu ko waxal si ñeenti mën nañ ko tënk ne doctrine wala idéologie yoonu murid mën nañ ko tënk si ñeenti baat yooyu noonu <laughs> alors ci euh, téere bi la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba dikkaat nga si euh, mbinduk euh, sëriñ bi ci wàllum diine ci wàllum économie mi ci wàllum xam-xam waaye ñu tàmbali ko ak diine ndaxte mhm. day pàcc bu am solo ci wàllu wàllum mouridisme ba sax sëñ bi si ay mbindam mi ngi fàttali ni euh, wareef bi njëkk euh, ci ab muskalaf mooy mu am ngëm. waaw waaw maanaam peut-être ñun ñi nga xam bu fekkee da ngaa juddoo ci famille bu gëm peut-être loolu doo ko xam wa waaye da ngay màggaale gëm bi waaye maanaam nit ki moom saa su ne li sëriñ bi wax mooy yàlla li mu waral li mu farataal ci moom saa bu demee ba kàlla am nekk am majorité maanaam mooy mu gëm yàlla am la foi. maanaam mooy li nga xam ne mooy première obligation bi bi tegu ci kaw nit ki su amee su amee majorité su àggee à de majorité kon gëm lu ponk la wala élément la bu am solo ci maanaam bépp xalaat boo xam ne tegu ci ci di lislaam ndax mooy premier fondement bi kon kon mooy mooy mooy tax tamit lépp lu ñu tegu mu mën a baax mais bu gëm amul nit ñi lu leen neex la ñuy def du am lu leen di surveiller du am lu leen di lu leen di lu leen di contrôler par exemple euh, euh, Platon bi mu bind la République maanaam dafa dafa am benn mythe bu mu teg mu ne mythe de Gygès lañu koy wax moo xam ne daf na ab sàmmkat la buy sàmmal buur mais benn jour mu nekk si àll bi di sàmm for benn jaaro boo xam ne da koy jox pouvoir invisibilité moo xam ne bu bu bu tourné jaaro bi day kenn du ko gis mooy gis nit ñi mais nit ñi duñ ko gis maanaam mu am le pouvoir d' invisible mais bi mu demee ba xam ne am na pouvoir boobu dafa dem rey buur bi Platon mu ne léegi naka lañ koy interpréter mythe boobu noonu mu ne li tax nit ñi ñu ëpp si nit ñi. di respecter les règles règles sociales et les règles morales mooy ne dañuy bañ ñu buñ buñ ko enfreindre buñ ko buñ ko jalgatee ñu gis leen jàpp leen punir leen mais mhm. ëpp si nañu suñ ko mënee def sans ñu gis leen wala ñu punir leen dañ koy dañ koy enfreindre mu ne kon bu fekkee ne mënuñu nit ku ne ñu teg si moom ab policier wala gendarme li am mooy ñu def ci nit ñi foi exemple def ci ñoom la piété def ci moom l'éthique loolu nag moo tax l'islam tamit maanaam maanaam maanaam wala la foi euh, mënul ñàkk ci organisation boo xamante bi ne bëgg nañ mu am la morale même tubaab yi nga xamante bi ne dañoo dàq l'islam dañoo fexe li ñu créé li ñuy wax la morale laïque morale laïque ñoom ñu am ay valeurs yoo xamante bi ne li nga xam ne mooy le nga xam ñëpp a ko bokk kenn ku ne di ko respecté maa ngi fàttaliku bi ma nekkee France am na benn ministre boo xamante bi ne dàq nañ ko parti socialiste dàq ko ci gouvernement bi mu nekkoon ministre du budget Jérôme Cahuzac parce que tout dafa am benn journal bi bind ne dafa am compte Suisse te wu ko bi ñu ko bi ñu ko woowee assemblée député yi ko mu mu weddi loolu maanaam journal bi génn ay preuve am mm-hmm. dañ ko daal di woo si saa si dàq ko ci gouvernement bi dàq ko ci parti socialiste parce que dañ ne dafa fen te ñoom kilifa la warul fen ñaare ba tamit valeur socialisme nga xam ne partage lay lay lay lay moom nangul partage li mu am kon nag ñun suñ dëkk yi nga xam ne dañ dañoo gëm ñu ëpp si ñun ay ay croyants lañ wala ay musulman lañ te ñun saa ñu nañu gis kilifa mu wax nag su dul noonu wala ñu dénk ko yëfi yëfi réew mi mu jël ko wala ñu gis ne mu am richesse boo xam ni mënu ko mënu ko mënu mënu ko en tout cas expliquer fu provenance yi kon jàpp naa ne respecté wuñu suñu suñu religion li muy wax respecté wuñu suñu ay kilifa li muy wax ñaari ba tamit amuñu beneen moral laïque buñu ñu pour tamit li ñu bokk ñëpp ñenn ñi bañ koo jël kon jàpp naa ne l'islam wala religion wala foi maanaam ci euh, une organisation sociale sociopolitique maanaam lu fondamental lu mënul ñàkk la wala la morale mënul ñàkk ci politique Euh, ci ci ci mbir moomu sax yaa ngi koy wax léegi euh, moral mënul ñàkk si politique éthique mënul ñàkk si politique bu fekkee politique bu amal njariñ la askan wi euh, loolu religion bi da koy da koy indi bu weesoo nit ki ak gëm-gëmam société bi diine bokk na ci li koy def waaye diine it mën na am loo xamante na indi ay bu fekkee ñi nga xamante ñoom lañ jiital bokkuñu ak git yi nga xam ne moom lañ soxla waaw parce que parce que loolu tamit maanaam maanaam alxuraan wax na ko ay xadis wax na ko même même même Serigne wax na ko mm-hmm. Serigne a ñi a mën pire être humain mooy ñiy lekk ci turu diine maanaam ñi nga xamante bi dañuy dund ci turu diine euh, charul wara allazina yakuluna bi diin maanaam ce sont les pires créatures maanaam mooy les pires êtres humains mooy ñi nga xam ne si seen dund bépp si si diine lañ ko teg maanaam di di di diine di nax ay nit ci lu loo xam teguwul fenn kon loolu noonu maanaam maanaam maanaam tamit maanaam beneen euh, pente glissante la boo xamante bi ne mën na mën na am ay ay nit ñoo xamante bi ne parce que société bi ñu si bëri kenn ku ne maanaam assemblée ou bien au détriment des autres am na ñoo xamante bi ne seen position politique la ñuy di jël àllu am na ñoo xam seen position sociale am ñoo xam seen position ci wàllum diine la ñuy kon maanaam bu fekkee ne nit ki tamit dafa jóg ne day wuti sëriñ wala day day day wuti ko ko ku ko ko dimbale ci wàllum diineem sëriñ Touba dafa wax ne na ngeen ci def attention bu baax a baax parce que mën na ci am ñu nga xamante bi ne dañuy nuru nurulu ay ay sëriñ wala ay nuru nurulu ay kilifa diine mais nekkuñu ko dañuy dañuy lekk rek si turu diine moo tax mu ne lu ëpp si ñoom sax dafa wax ne seson sont des des guet-apens ay fiir lañ mm-hmm. ay fiir la yoo xam ne boo tàbbee rek buñ la jàppee doo doo mën a rëccati kon bëri na tey jii léeg par exemple ay nit ñu ñuy ñuy wax ci wàllum def ay critique ci wàllum wàllum wàllum wàllum wàllum islam confrérie tey ji man loolu damay wax ne bu fekkoon dem nañ ci sëriñ bi par exemple bu ñu jëloon ñoom ñoom ñoom sëriñ si si boppam par exemple bu ñu ko mel ni sëriñ Touba critique yi muy def envers la les les les moo gën a sévère moo gën a moo gën a moo gën a acèbre ñi ñi ñi ñuy jàppee comme ay ay ay ay anti confrérie wala yu demee noonu maanaam il est il est très rigoureux envers envers lui-même et les et les et les li ñu leen wax danañ danañ def attention mais nag peut-être ñëpp meluñu noonu am na ñu nga xamante bi ne ba léegi seen rôle ñu ngi koy joué fexe ba nga xamante bi ne parce que dañuy wax ne lislaam du du wala diine du métier nit ki dafa war a am métier bu muy exercer maanaam am na ku ma sa ñëw Serigne Touba ne ko par exemple dama bëgg dama bëgg dama bëgg liggéey sëñ Tuubaa ci ñaari doomam la ko li ko la ko jox exemple ne ko demal ci sañ sëñ sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou la nga leen gis ñuy def mën nga ko def bu ñu gis am gis leen ñuy bay ñuy bay bi muy dem si géej gi tamit maam Thierno mi mu dénkoon ak njabootam daf ko digal daf jox ay bayit bind ko ne ko na digal naa la ngay bay maanaam kon nekk mën nga nekk sëriñ teewul nga am sa métier moo xamante bi lislaam nangu na ko ngay liggéey li nga xamante fonction maraboutique la ku soxla ci wàllum diineem ku soxla ci leneen nga nga jàppale ko ci sa kéemtalaal kàttan ndax dañu wax ne sëriñ moom ñett sëriñ rek moo am amul amul ñeent amul amul juróom sëriñ bi nga xamante bi ne daf lay jàngal ba nga xam sa diine mu ñëw mu lay jàngal ak sëriñ bi nga xam daf lay yar maanaam am nga ay comportement wala ay jikko yoo xam ne baaxul nga bëgg mu denc yow nga dem si yàlla ak sëriñ boo xam ne lay àggale ci yàlla sëriñ boo xam ne mooy sëriñu tarxiya moo lay yóbbu ci yàlla loolu nag maanaam qualification la bu fekkee nit ki par exemple xamul diine mënu ko jàngale su fekkee ne xamul moom yëru boppam ba yaru mënut yare su fekkee àggul ci yàlla mënu ci àggale mais nag comme suñu société dafa nekk société bu nga xamante bi ne culture bi am doole ndaxte dafa nekk société caste par exemple dañu naan nit lii la par exemple ñu ne tëgg la te boo xool amul benn qualification tëgg mënul tëgg jaaro mënul tëgg lam mënul tëgg dara ci forcément dañ koy classé foofu noonu boo nekkee am na sant yooyu ant dañ lay classé ci naan sëriñ nga te ji man ku man bi may liggéeyee par exemple IPRES bi may ñëw bi nekkee service contrôle da ngay dem ci entreprise di contrôle boo présenté ko Khadim Mbacké dañ lay xool comme un marabout <laughs> mënoo ci dara mm-hmm. moo tax peut être réalité socio culturelle yi moo moo xawee noonu moo tax daal en tout cas nit ki mooy son responsables premier mm-hmm. ndaxte même lislaam boo xoolee am na ci benn ay boo xamante bi ne yàlla dafa wax ne ëllëg bu yomal xamee ñi saytaane réeraloon daf leen di wax saytaane daf leen wax ne am ma ci yéen benn responsabilité dama leen wowoon ngeen topp ma tey. maanaam la ma leen waxoon du dëgg li leen yàlla waxoon mooy dëgg ngeen bàyyi yàlla ñëw topp man am responsable daa yàlla leen wax yéen ñëpp an leen setaan a dem ba tax nit ki tamit bu la nit naxee ba dugal la a nax du la ci génne ba hmm. tax daal yaay sa responsable numéro un euh, pour pour ñu bañ a nax nit ñi il faut nit ñi jàng nit ñi am xam-xam loolu sax di dikkaat ci euh, euh, solo si Serigne Touba joxoon wàllum xam-xam muy firdeel sax li nga xamante ne moom mooy solo si ko yonent bi joxoon di wax ni bu jaree dem ba Chine jamono jooju ak li nga xamante ne hmm. déplacement noonu la jafee Euh, ngir wuti xam-xam dañ koy def Serigne Touba euh, moom it di wax ndaw ñi euh, gaaw leen daw wuti ji li nga xamante moom mooy xam-xam te it bu ngeen bañee di di di am gàcce dee leen jiital xam-xam laataa ngeen di jëf. waaw waaw parce que parce que xam-xam moom dañu wax ne jëf bu ko xam-xam kiwul rek am am lu ko rax lu koy yàq. Mhm. moo tax Serigne bi bi mu waxee ne li obligation bi njëkk devoir bi njëkk mooy gëm. ñaareelu devoir bi mooy jàng. pour xam sa diine ndax boo xamul sa diine ni doo ko war a pratiquer ni nga ko war a pratiquer man nga ci def ay erreurs yu bëree bëree bëri bëri. ñaare ba tamit maam dañu wax ne yàlla li mu njëkk wax ci benn xadisul xudsi dafa ne xam leen man lu njëkk ngeen may jaamu. yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ay xadis yu bëri wax na euh, wax na wax na wax na maanaam njëriñul jàng wax wax ne dem leen jàng yi ba donte da ngeen dem Chine loolu tamit am nañu li ñu ci mooy kon du xam diine rek la ñu war a jàng. ndax peut-être ba muy wax loo xam ne ne Chine dina nekku fa mhm. waaye xam-xam bépp bu amal njëriñ doomu aadama rek waris na ko mën a mën a jàng waaye peut-être bu ñu jullit mën naa am suñ diine la ñuy tàmbalee ñaare ba tamit loolu moo tax borom xam-xam yi sax am nañ ñu ay ay divers point de point de divergence bi am wax ne ñoom ku mel ni imaamu Shafi'i wax ne su fekkee nit ki par exemple dafa julli ba pare te julli gi yow mi toog jàkkaarloo muy julli gisoo ci lenn lu loo xam ne def na ko lu yàq julli gi moom def na ko ni mu ko war a defee amu ci julli gu parfaite la def mu ne bi mu paree nga laaj ko farata yeeg sunna yi xamul xamul ci dara mu a man daal dama gis ni ñuy julli rek ma julli ni ñuy jullee imaam Shaafi wax ne julleem googu baaxul parce que xamul farata yi xamul jàngul ba xam naka la ñuy jullee lu ciy farata lu ciy sunna lu ciy man duub ak yooyu noonu moo tax mu ne kon julli gi baaxul am nañu ne non bu fekkee julli gi daal def ci lenn lu koy yàq julli gi baax na kon ci loolu nag maanaam julli julli jaamu yàlla yëpp la koor ak aj makka ak lépp lu ñuy def rek dañu wax ne danga ko war a xam ba pare soor ko soor ko commencé pratiquer moo tax xam-xam maanaam boo ko amul sa sa jëf mën na bañ a baax ñaareel ba tamit mën nga jàpp ne eh, nii laa def fekk na li ngay def ay erreur la par exemple da ngay da ngay gis ñu nga xamante bi nii bu ñuy julli mën nañu nañu war a rokooy wala war nañu war a toogee wala yoon de kii peut-être ñàkk xam ko waral wala boog si sa wàllum diinati mën nañ la cee nax moo tax xam-xam bi tamit sëriñ bi jox ko maanaam importance bu mag a mag muy ne après la fois deuxième obligation bi mooy le savoir mooy fexe ba jàng ba xam li ngay pratiquer sa diine. bu weesoo euh, euh, science théologique boobu muy li ngay pratiquer sa diine am na yeneen xam-xam boo xamante ne daanaka bu fekkee bëgg nañ yor euh, réew mi yor société bi nga xamante ne day jëm kanam faaw ñu def ko loolu. permettre ñu wax ci suñu système éducatif yaa ngi koy wax sànq. Mm-hmm. bu fekkoon ne euh, euh, euh, li ñu bind rek déjà. Mm-hmm. waxuma sax leneen waaye li sa bind rek kilifa yi nga xam ñoom ñoo ñu jiitu. Mm-hmm. jàngal nañ ñu ko daanaka weesu nañ fi. waaw parce parce que parce que loolu mooy suñu problème ñun indépendance day mel ni bi ñu ko amee dañoo continuer benn système éducatif boo xamante bi ne maanaam colonisation moom moo ko fi bàyyi te te dañu war a xam ne colonisation yi maanaam maanaam maanaam tubaab yi bëgguñu woon ñu ñu développer. même am na loo xam ne peut-être neexul wax mais même entre. maanaam tubaab yi ak ak ak population yi ñoom dañoo dañu formé woon ay intermédiaires yu fi nekk yoo xamante bi ne connaissance rudimentaire lañ leen di jox ñaari ba tamit maanaam yeneen kii ñu indi yeneen xeet yeneen nit ñu ñëw fii par exemple maanaam bëgguma tudd tur mais mais boo am na lu nga xamante bi ne ay indi nañ ñeneen loolu lépp pour rek bloquer les africains ñu bañ a ñu bañ a xam xaalis baña xam euh, euh, euh, maanaam ay entreprise bañ a bañ xam liggéey kon nag bu fekkee ne dem nañ ba ne léegi moom suñ bopp tëgg tabax suñu dëkk selon suñ suñu bopp dañu war a tëggaat suñu système éducatif boo xamante bii ne li ñu soxla pour développer muy wàllu xam-xamu diine wala xam-xamu technique wala xam-xamu euh, euh, euh, technologie lépp li nga xamante bi ne war yàlla jox nañu comme matière première te ji par exemple ñuy wax dañoo am pétrole mais pétrole bi faw ñu jeegaani ay techniciens ñu ñëw man ko exploiter ñu jox ñu ay dii pour cent demee noonu nga xam ne ñooñu siy ëppale kon bépp xam-xam bu nga xamante bi ne rek soxla nañ ko pour suñ dund ñoom maanaam dañu dañ dañ dafa baax si ñun ñu am système bu adapté moo koy permettre waaye bu ñu perpétuer système boo xamante bi ne rek pour jàngal nit ki liir liir compter rek loolu jàpp naa ne du du tax euh, li ñuy xaar ci citoyen bi mu man ko accomplir. Mm-hmm. Euh, bu weesoo wàllum xam-xam boobu ak ni ñu ko war a uti ji euh, sànq yaa ngi tudd wàllum même kilifa yi sax war nañoo war a xam nitu déedéet bi sax dafa war a am liggéey muy wane importance su liggéey ci li nga xamante ne moom mooy mm-hmm. wàllum mouridisme. Mm-hmm. permettre ñu ñu wax ci volet économique. ci ci mbindug sëriñ bi. waaw waaw parce liggéey tamit comme ba tey tey sëriñ bi moom it da ko jàppee comme comme obligation maanaam farata farata nga xam ne yow boo ko deful day mel ni da ngay am bàkkaar parce que moom dafa wax ne wa talabul far fardun la wax fardun yantami li kulli muslimin bi xeyri wax bi moom du wax liggéey dafa wax ne wut lu lew maanaam waaye li liggéey la si jublu mu ne farata la ci bépp jullit maanaam kon farata mooy comme ni nga xamante bi dañuy julli farata la nga xam ne bu julli jotee boo julli da am bàkkaar liggéey farata ndax lu lu sëñ bi ne lan moo tax ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne liggéey farata la mu ne ndax julli ak koor ak jaamu yàlla yi ñuy def yëpp du baax lu dul nit ki day lekk lu lew nit ki li muy lekk su fekkee ne lu araam la lu lisi lu illicite la jaamu yàlla bu mu def bu jullee du du du duñ ko duñ ko yàlla du ko nangu. Mm-hmm. kon bu fekkee ne ndax loolu ab règle la règle juridique la parce que dañu wax ne lépp lu nga xamante ni obligation la te bala muy baax am na benn obligation bu ko jiitu. loolu ko ji day nekk obliga obligation par exemple lu mel ne julli julli ñu ne obligation c'est obligatoire mais julli bala moo baax faw nit ki am jàpp moo tax jàpp nekk obligation léegi nag bu fekkee ne julli mënul baax yëpp mënul baax ca lekkoo lew ut lu lew tamit day nekk obligation loolu règle juridique la moo tax bu feq la moo tax moo tax Serigne moom def ko obligation doon ci digal ñëpp moo ñëpp ci ci ci géem booy xoolee 1935 def na bi ñuy def décor ñi dàqoon a bay ci ci Afrique de l'Ouest bi ñëwee fii nii Sénégal ñaari sëriñ lañ fi jël muy sëñ Modou Moustapha ak maam Thierno Borom Daaru ñoom ñoom la ñu woon ñu bokkoon ci li 250 agriculteurs yi nga xam ñoo dàqoon bay ci Afrique ci la wef nga xam ne même France ci la bokkoon ñoom ay sëriñ lañ woon moo tax liggéey maanaam dafa nekk lu nga xamante bi ne yu farata la ci ndax nit ki ci lay mën a jaar pour sàmm diineem sàmm dignitéem sàmm timit ngoram ba du dépendre ci ci kenn wala du def lenn lu nga xamante bi da koy yàqal maanaam maanaam dignitéem moo tax sëriñ bi def ko def ko obligation. suñ lay liggéey ci wàllum mouridisme duñu waat duñu fàtte wàllum xidma. Hmm. waaw xidma xidma maanaam moo liggéey daanaka mën nga gis ñaari nit ñuy def même même même même même même même activité bi hmm. ci kii day liggéey kii day xidma par exemple maanaam euh, xidma mooy lépp lu nga xamante bi ne activité boo xam da koy def rek ngir yàlla man da nga koy def mais ci nit ñi la jëm maanaam tey jii mën nga fekk benn mag bu màggat yori bagage su nga yoral ko ko wala nekk ci benn tool di di di bay ca tool ba bu bu paree dañ ci tabax jàkk wala dañ koy dañ koy dañ sëriñ bi nga koy defal ngir yàlla wala yu demee noonu lépp lu nga xamante bi daal bépp jëf bu nga xamante bi ne danga koy def te defoo ko ngir xaar ci ñu fay la loolu mooy xidma moo tax te xidma dafa nekk lu am solo lu nga xamante même sëriñ Touba moom dafa dafa ñëw ne moom day xidmaal yonte bi saa salaam moo tax mu changé turam Ahmadou Bamba Sall lañ ko daan tuddee mais mu xëy benn bis ne maanaam léegi xaadimu rasul laa tudd mooy le serviteur du prophète kon xidma tamit maanaam notion la bu am solo ci yoonu murit njàngaleem Serigne Touba. Mhm. ñu jaajëfal la bu baax Xaadim Mbacke Abbas. jërëjëf sëñ euh, Assane Gueye ñoo ngi leen sant bu baax a baax ci dalal gi. Khadim Mbacké Abass euh, bind téere bi la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba nekkoon suñu gan euh, ci magazine de la mi-journée ñu jaajëfal leen yéen mbokk yi ci euh, teewlu bi jaajëfal Kéba mi nekkoon ci caméra bi Jacques Préra moo nekkoon ci régie bi ñu yendoog jàmm ak suñu programme bu subaak jàmm